Thank you. jërëjëf euh, mbok yi ñu am delu ci wat euh, sen plateau fi euh, di fi dalal ay gan di waxtané lo xamné mu ngi soxal élection présidentielle yu ñu jëm gis ngeen ne ciow li bari na trop ba wa ñi nga xamné ñoo di jomaay président coalition génnee sen programme mom ci ay ponk yo xamné ne ciow ku nekk yang ci jox sa xalat ñu bëgg nag. Euh, may leen opportunité ñu leeralal askan bi lan lañ bëgg a wax ci ponk yooyu moo tax tey jii euh, dañ waxtaanee wàllu mone ak tamit yeneen ponk monnaie bi jur na coow ñu dalal fi nag mu Moussa Balla Fofana kenn du ko présenté moom ah, moom yàgg naa nekk kenn koo xam ne day xeltu lu jëm ci wàllu koom-koom nekk aussi banquier nekk Canada bokk ci Pastef àndandoo woon bind benn téere ci wàllu collectivité locale yi ak kii nga xam ne moo di euh, Ousmane Sonko euh, ñu dalal ko pour euh, waxtaan ak moom mu leeralal askan bi Moussa Bala Fofana maa ngi lay jox kàddu gi nga nuyoog ñu ñuy seetaan. Pape Alé maa ngi lay nuyu. vraiment am mbégte. Mm-hmm. trop ñëw ci sa plateau. je que c'est la deuxième fois. Mm-hmm. di profiter ci koor gi ah, di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla mu dimbale ñu ba lépp loo xam ne. Euh, jaamu nañ ko ci weer wi mu nangul ñu ko. Mhm. profité tam ci weer wu sell wi. ñaan suñu borom mu dimbale ñu ñu am élection yu dal nit ñi déglonté mhm. sénégalais yi xëy voté te changement bi nga xam ne ñu ngi koy yaakaar ci suñu réew yàlla defal ñu ko. alors dama dégg ku wax démb ne tudd affaire monnaie mhm. ak fi ñu toll nii du am responsabilité manam c'est irresponsable ñuy waxtaanee wàllu moné té yeen mu nek sen programme lan ngay tontu tontu bu njëkk ci lolu xam nga dafa am ben génération d'hommes politiques. Mhm. bo xamné ne dañu bëgg mysticisme bëgg réel, ak compliquer Yo xamné ne dafa simple Yo xamné ne citoyen bi mëna ko comprendre. Mhm. Yo xamné sax citoyen bi mo ci wara taxaw te ñun politique bi ñu gëm mooy politique bi nga xamante ne nii askan wi dafa comprendre les enjeux parce que réew mënoo koo soppi te askan wi àndu ci changement bi ñuy wut changement sénégalais bi la sénégalais bi mooy changer réew mi changer léegi bu fekkente ne dafa am ay enjeux ak ay défis fondamentaux. sénégalais yi war ko comprendre war ci adhérer war ko doxal parce que n'ak benn président ak 50 ministres du ñoo développer développer réew mhm. askanum lëmbay développer réew changement de mentalité Si civisme Les may ont une souveraineté civique. Mhm. parce que bu ñu une souveraineté du souveraineté économique il faut d'abord que la souveraineté soit civique. Mhm. mais pour que la souveraineté civique am il faut que nous nous xel mi foog ñu xamal ko foog mu comprendre enjeux yi ba nous du ko dootu ko mën a ci donc bu ne gëm-gëm boobu politique c'est de ta responsabilité en tant qu'homme homme politique nga leeral askan wi clairement ci lan ngay dugg. Nous nga di ci dugg lan moy solo si ak nan nga koy mais nak bu ne da deal politique un dealer politique ñep xam ko. dans l'obscurantisme di ak ngandal lo chaque fois débat bu amé, débat bi ko aborder parce que ya ngi défendre intérêt ñeneen ñi da nga buñ raisons d'état wala ñu di ko alors que c'est tellement simple mbiri monnaie parce que mm. monnaie citoyen be comme instrument am la d'abord. kon da nga foog ne amna na ñoo xam ne dañoo ragal tuddu CFA bi ndax ragal France. wala seen intérêt moy dañoo gëm ne ku fi falu fi ci réew mi France la fal. non seulement dañu ragal France mais ñom sen wàllu bop dañu am des limites pour expliquer nit ñi clairement Tay ñam ma ngi ñaan Yalla tay émission bi Yalla may ñu dal ba ñu mën ci dugg ba nit ñi xam lan moy solo si.

ngeen jël monnaie. teg ko ci bëgg mu doon débat. ñun dañoo mës a débattre ci souveraineté économique. Mhm. Ousmane Sonko boo ko laajee idéologie am danaa la je suis un souverainiste. Mhm. d'ailleurs looloo tax ma bind téere dernièrement tuddee ko le projet souverain dañu di naan le projet le projet le projet. Mhm. projet PASTEF mooy projet fexe ba réew mi am souveraineté souveraineté nag mooy lan mooy koo xam ne dafa téye koomam ba noppi téye ay valeur am moomal ko boppam téyel ko boppam di ko doxalal boppam. loolu mooy souveraineté su ma ko bëggee gàttal. polémique bii am lenn andiwu ko lu dul ñoo xam ne dañu bëgg simplifier loo xam ne dafa complexe muy monnaie. Mhm. te il ne faut dans la vie faut pas avoir peur des choses complexes hein? parce que ku ragal lu complexe mooy ku bëgg lu yomb. Mhm. am na ñoo xam ne dañ bëgg di compliquer loo xamante ni nii bu temps faram fàcce ko wax plan bi lan la stratégie bi lan la objectif yi lan la mu leer ci bop ñep mhm. ak nak ño ils sont dans la politique politicienne parce que Pape ba Sénégal soso ba légui ku génné programme di nga génné 5 10 ou 15 axes axe bu sont nga def ay tiré né axe bi li mo ci ne gis ñu wax souveraineté monétaire nga bëgg conclure né souveraineté bi dañ koy def ci 6 mois wala ci 1 an lolu ça c'est de la politique politicienne ok kon suis mhm. comprendre ma pour nga mhm. Mhm. mais wala absolument Nico, nous dans la politique politicienne et je suis déçu de voir des gens qui nga xamné amona estime trop ci ñom ñu japp ne ñun ñak nañ xam luy moné ñak nañu assumer suñu euh, suñu projet bi ba ñun ne français fa xoti len ko andi len benen moné yakarna lolu politique politicien rek mo meuna def logique bob ñu mhm. nekkun ci lolu dama la wax sànq ne la dafa am ño xamné dañuy simplifier le complexe. Mhm. dama bëgg wax wan nit ñi complexité moné moné ah, moné rew dafa am une réalité sociologique d'abord Pape yow sociologue nga avant nga nekk mhm. journaliste. xam nga ne lepp lo xamné askan wi yëpp dañoo d'accord né sen alal ak sen service suñ la koy jox bo len ko joxe ñu nangu ko loolu élément de confiance la. Mhm. mu c'est d'abord la confiance c'est mel ben contrat social ñu nangu té askan wo gis ñaar ñoo ëpp solo sen bir société bo gis amna ñaari socle la wéeru. Mhm. la sécurité moy kaaraange. nit ñi ak sama samal ma samay bien nit ki alalam lu ko jégé la sauvegarde des biens sauvegarde des sécurités lolu moy la société monnaie mooy jumtukaay bi nga xam ne dañoo d'accord ne lépp lu ma am ci xam-xam wala ma am ko ci expertise wala ma am ko ci matériel soo ko soxlaa am na njëg loo xam ne soo ma ko joxee ma jël sama alal jooju wala sama service boobu wala sama mën-mën boobu ma defal la nga fay ma. Mm-hmm. xam nga loolu confiance la. confiance lu ñuy tabax la sur le temps nekk lu ñuy xëy rek. jëmmal ko mhm. kon ku xam la dimension sociologique et sociale de la monnaie xam ne kenn du planifier transition monétaire bu mel nii di wutal Sénégal souveraineté ne da koy def ci ñaar wala ñetti wala ñeenti weer hmm. bu ñu neexoon mën nañoo arrêté émission bi fii nit ñi xam ne kon lu mel ni monnaie nga xam ne confiance sociale la planification bu leer lañ ciy jëmee loolu mooy benn fonction monnaie rek mooy instrument social qui permettre ben échange des biens te échange bien su amul économie mënut am parce que commerce moo nekk ci base lépp. absolument donc gis nga monnaie ni mu amee solo nekk mm-hmm. instrument buy permettre commerce te amul nag professionnel mon ngay médecin ngay journaliste euh, ngay jaaykatu mburu ñëpp on fait ñëpp le ñuy commercer am le lu ñuy jaay. li ñuy mm-hmm. jaay loolu dafa am loo xam ne boo ko joxee ñu nangul la donc monnaie confiance la confiance dañ koy bâtir. Mm-hmm. donc nous, on est dans une logique de planification sommes dans une logique de koy suul tey mu sax deuxième fonctionnalité monnaie Là, on damay dugg une fonction économique Le Pape économie c'est gis dafa am tant que gérer woo le développement économique si tu ne maîtrises pas les prix bu tu as 500 000, ce loyer ce denrée ça te coûte 300 000 mais dès que acteur économique yi di yokku njëg sa salaire u 500000 bi day dès que valeur am baissé ba la nga doon def ci 500000 boo dépensé dootoo dese dara. Mm-hmm. boo desewul dara doto épargner so épargner wul banque yi am problème liquidité su banque yi amee problème liquidité am problème mu gis nga inflation nim mu gravé. hmm mm-hmm. mu yor monem da ngay am capacité di mën gérer inflation mën teyé téye ñuy wacc Pape est-ce que nous ku responsable mën nga développement au Sénégal ba noppi nga ne mënoo instrument bu lay permettre de gérer les prix C'est irresponsable rek moo et la preuve Sénégal ba mu ba mu logique boobu banque centrale mi ngi góorgóorlu ci loolu bokk na ci réussir mooy lutte contre l'inflation. Mm-hmm. mais nous avons am sa monnaie bopp am capacité d'injecter injecter de l'argent dans l'économie permettre de stabiliser à l'accès au crédit loolu day tax inflation donc première importance monnaie moy day tax nga mën maîtriser les prix daf ci jouer sur l'inflation deuxième élément pap bu weesoo njëg li nga xam dafa lié ak salaire yi mooy dama la wax sank inflation njëg dafa lié ak salaire bu njëg yi di yok salaire yi épargne bi boo dépensé mm-hmm. do am épargne bo amul épargne banque yi sen sen seen xaalis ko bu ñu ko cycle la bu weesoo lolu banque mo nek xolu économie les banques waaw ñooy xolu économie. xaalis fa lay dugg xaalis fa lay génn. boo déposé loolu daf leen di ce qu'on appelle prudence dañuy am alal am xaalis loolu day dal senchel. xel boo lebalee ñu analyser xool ndax yow sa entreprise dëgër na entreprise saine. boo xam ne mën na def croissance ñu door la lebal. donc entreprise banque moi jël alal ji di ko denc di rémunérer nit ñi ba noppi jël alal jooju di ko lebal ñi nga xam dañuy produire de andi croissance loolooy banque mais banque boobu xaalis bi muy leble yep amuko parce que li fait fay tout tolloolul ak donc mon bu à la fin de la journée mu soxla acteur économique yi yor ay projet am solo ko ci table mu Ils financer mais yorul day ci une banque ne ko parce que boo ma financer mais pap ñaari banques c'est des banques concurrentes. kenn ku mhm. nekk boo ils yaay jël client bi mhm. kon yow man est-ce que ma non tu as tendance à cher. Mhm soo may lebal lu cher kee tam di ma lebal lu cher ñuy lebante lu cher xaalisu njëgu xaalis bi di yokk te njëgu xaalis boobu su yokkee kan lañ koy répercuter. Mm-hmm. citoyen bi citoyen bi. am surprise bi banque centrale ne man comme maa fi nekk pays réew mu yor banque am yor monnaie parce que monnaie du rek xaalis bi. monnaie mooy gouvernance monétaire bi mooy banque centrale bi. Mm-hmm. moo naan sama réew mi ku fi déposé xaalis kenn du ko ñàkkal fayda man dina la minimum 1 ce qui fait que keneen bu la nga 1 tu keneen koy plus cher. Mhm. mais bu ñëwaatee ci bor ci ci xaalis koy leb man banque centrale banque bu soxla xaalis ci réew parce que da ngaa bëgg a lebal euh, Dakar matin parce que a un projet bu bees. Mhm. Dakar matin bu analyser 5 pour la nga ko a lebalee nga a 2 pour cent. Mhm. boo 3 bu ko faale ci 2 ce qu'on appelle la fourchette opérationnelle. Le fait que Banque centrale taxaw ne ku fi teg xaalis ma rémunéré le temps du ma néewal kenn alalam te ku soxla xaalis bu ñu la bëggee teg lu munul ñëwal ma jox la à 2 pour cent gis nga diggante 1 ak 2 boobu mooy day compresser toute l'activité interbancaire mooy banque yi khalis, bi ñu war a lebal seen biir. da koy bloqué ci espace 1 à 2. ce qui fait que loolu bu ko defee rek mooy képp ku soxla xaalis banque bu soxla xaalis mën nga ko am à moins de 2 Si vous avez à moins de 2 vous avez nga 1 wala 2 à 4 ok su banque centrale deful rek banque yi dañuy commencé dabalante 6 8 9 Vous cent. répercuté kon da réguler day donc souveraineté monétaire. mooy nga une banque centrale nga une capacité boo xam ne yow monnaie yaay décidé ce taux directeur loolu ñu taux directeur quel est le taux directeur de la banque centrale mooy tey maa joxé mbir mi ci temps. Mhm. ku soxla ma dépôt xam nga xaalis bo amon xaalis bu nga déposer ko pour ñu jox la pour am ci un pourcentage. Mhm. nga banque yi nit dañuy on a tendance à te donner le moins possible. mais mhm. pour que xaalis bi am valeur banque centrale danaan ku fi déposer minimum 1%. Ce cent fait, ko defee keneen bu soxlaa sa xaalis dina la fay un point mais yow boo ñëwoon nag di leb ñu bëgg laa lebal lu cher ba ëpp banque centrale de man de ko fi ñëw ma lebalee de deux donc bu fekkente ne yow da ngaa soxla xaalis nga ñëw ci man ma ne la bon mën naa la koo lebalee deux vingt cinq. Mm-hmm. nga ne nga ne ma non man banque centrale deux lay joxe boo deux vingt cinq du ma ko jël soo bëggee ma jël ko da ma koy lebalee à un quatre vingt quinze wala un quatre vingt cinq. donc mm-hmm. man je suis obligé bu ma bañee nga dem fee leb foofu à taux ma defal la taux bu gën a baax le fait que may wàcc taux may malay lebal ci en bas wu taux taux banque banque centrale bi. Hmm. lolu moy na la fourchette des opérations la banque centrale chaque fois day analyser économie réew mi bu gisee ne économie réew mi dafa soxla nit ñi consommer mu daldi di wàññi njëgu xaalis bi. Hmm. nit ñi gëna a yi lepp nit ñi di lepp muy dem bu gisee nit ñi dañoo ëppal consommation bi ëpp na mu yéegal njëgu xaaliss bi gis nga ni muy yokk wàccee njëgu xaalis ak di ko yéegal noonu lay réguler la consommation et l'inflation mais lool lan mo ci njariñu am sa monnaie. mais parce que yow yaay décidé. Pour amé sa banque centrale xam nga loolu que nit ñi dañ monnaie billet mhm. pièce bi. li ëpp ci monnaie kenn du du billet du pièce li ëpp ci monnaie ay transaction la li ëpp ci monnaie ay virement la mooy xaalis boo ne duñ ko gis parce que du du du. du du li ëpp ci banque centrale nga banque centrale bi am na capacité créer xaalis. la mhm. créer bu réew mi soxna na xaalis damay créer xaalis injecté ko. loolu mooy troisième élément bi. xam nga njëkk naa la wax ne day lutter contre l'inflation. Mhm. day lutter day day fexe ba créer benn fourchette des opérations mais ensuite day mën a injecter de l'argent dans l'économie. ok bu réew mi demee ba teeñ. boo yore sa monnaie. yore sa monnaie mais xam nga ko est-ce que lu mel nii nit dina ko xam mu am njëriñ ci économie mu ne bëgg ko nit mënul bañ lii. lu tax yéen pourtant ñu ngi yor CFA bi. -hmm. CFA bi ko def lutax yeen yéen ngeen contre CFA bi. problème CFA bi motax mais bo xam nga boo duggee ci CFA rek dañuy dugg ci l'histoire de la France yakane ne France a tax. Mhm. xam nga dama la njëkk jox fonction sociale jox la fonction économique. xam nga wax na la mhm. techniquement lan la monnaie di jëriñ légui monnaie dafa am dimension politique am c'est-à-dire que réew waro jël sa monnaie tuddé ko benen réew mel ni franc CFA lo xamné benen réew ko inventé parce que cette monnaie doit symboliser sa souveraineté Il y a la dimension symbolique la dimension politique Tout ça pose problème. Mhm. Bon le système de garantie parce qu'en réalité il n'y a a pas réellement de garantie mais élément boobu ça pose aussi problème mais ce qui est am solo ci li nga xam ne nit ñi dañ ko comprendre Moi, ñun waxuñ ne que ñëw rek jëli fi CFA. Mhm. xam wax la monnaie mais papa, am na a am importance monnaie. Moi, lan nga monnaie instrument d'échange mhm. mais le marché est plus important que la monnaie. ok Am nga marché moy fi ngay jaayee say produits. Tay le marché sénégalais ak marché zone zone UMOA ban mo ci ëpp solo ci économie. Mhm. zone UEMOA donc on est plus intéressé à avoir une monnaie pour bok plusieurs pays parce que l'impact en termes d'économie, marché dafa am solo ci économie parce que économie première étape c'est le secteur primaire qui produit l'industrie qui transforme mhm. ensuite on vend mhm. et la monnaie est là pour servir mhm. les transactions à créer un taux directeur qui permet d'avoir une fourchette des opérations bon permettre une création monétaire Donc di donc monnaie ok monnaie est donc avant nga changer da ngay changer monnaie il nga que relancer ce secteur primaire Il faut que vous lancer sa industrialisation Il faut que vous relancez, situation que nous sommes euh, les les exportations c'est 5 000 milliards. Mm. déficit de balance commerciale c'est 2 400 milliards. notre endettement est à plus de 60 pour mm-hmm. tous les critères yi réew mi les critères la yoo xamante ne nii kenn ci def quels mënu ci opérer changement monétaire ci contexte bi. Li encore daf lay le. ñun on est dans une logique planification ba keroog ñu ciy mën a yegg mais logique tey tey tey dañ koy def parce que nous briser confiance bi faut ñu réunir les conditions. Mmh. door a conditions économiques dora a mais fi may mujjee ci analyse globale bi pour nit ñi gën a comprendre problème mu bi mooy et looloo tax nit ñi tam di ñu jéem yakal, nous, on n'a jamais dit que notre objectif c'est que le Sénégal rek yor monnaie souveraineté monétaire ko am avec d'autres pays. mais d'ailleurs a une procédure bu nous lancer depuis euh, ECO voilà depuis Abidjan. Abidjan donc le plus important ce n'est pas la monnaie le plus important c'est le marché. Oui, moi. donc nous, dans notre stratégie nous nañ

mais ñun liñ ñaan yàlla mooy bëgguñu dem ak ñun mu ne ñun dong liñ bëgg mooy ànd ko plusieurs pays dans la sous-région pour tabax benn espace économique parce que foofu la ëppee solo parce que mu ne njëriñam mhm. mooy mhm. développement mhm. économique mu ne njëriñam nekkul rek ma yor ko moom am naa sama monnaie non non non am na réew ñu yor seen monnaie taxul mu amal leen njëriñ donc mu instrument la instrument buy dimbale le marché mais le marché bo xamné dafa am production ak transformation. mais comment se fait-il que le débat a été posé au niveau de euh, la CEDEAO ça n'a pas posé de problème et président yi. Mhm. avait souscrit sauf que je pense que durée bi lañ lañ moo. durée bi mo polémique avec euh, Ouattara Ben trouvé sax le nom de ko éco. Nous ñun tay ji suñu stratégie motax mané la nga sax nee la am na ñoo xam dañuy simplifier lu complexe. Mhm. nga tay ji ñëpp d'accord nañu li ma expliqué nii ne lu complexe la. lu complexe il y a une dimension sociale sociologique. oui bien sûr non lu complexe il y a l'ensemble des instruments techniques. yi may mhm. jéem a expliqué plus la dimension politique et souveraine. Mhm. loolu yëpp mi ngi ci donc du lu du lu simple. loo xam ne mën nga xëy suba def ko. mais bi ci top moy sous région bi dafa am rew yo xam même sen bëgg dem ci moné bi dañ koy wax rek mais au fond est ce que bëgg nañ ko. Nous avons ñun posture qui nous a am moy dinañu def diplomatie L'objectif xamné objectif am moy amener les pays africains tout de suite à travailler sur ça pour tout de suite nous tek à agenda bo xamné def ñu ñuy ci souveraineté monétaire dans dans un cadre espace Nous xamné ne koy bok parce que si nous mm-hmm. monnaie bo buñu bok ñun plus espace bu ça c'est beaucoup mieux pour nos objectifs de développement économique. le marché le marché. Parce que notre objectif, c'est l'économie. La souveraineté monétaire, ce n'est pas une fin en soi. Mm-hmm. Souveraineté monétaire, des dirigeants bés boo amee secteur primaire boo xam ne yaa ngi transformé yaa ngi napp lu bëri di ko transformé mm-hmm. yaa ngi mbay lu bëri di ko transformé say matière première yaa ngi koy say matière produit minier yaa ngi koy génn suuf di ko transformé sa réew mm-hmm. mooy quand tu auras réussi révolution secteur primaire réussir sa industrialisation euh, euh, euh, inverser sa balance commerciale tu es en train de réunir les conditions mais loolu tey boo ko seqoon ak pays yu bëri en plus ñun mm-hmm. suñu développement économique dans notre stratégie économique le développement le marché africain est fondamental mhm. parce que Africains africain bi ñu ëppal alal que jaay parce que africain bi daf la jégué mhm. volume bi nga Mali. ko jaay France. Mhm. pro Mali le produit industriel sénégalais. français bi du priser le produit industriel sénégalais. donc ñun suñu marché bi donc moo tax ma naan am na yoo xam ne dañuy bëgg a simplifier dañuy bëgg a jàpp ne ñun. dañuy compliquer non dañuy boo xamee suñu modèle économique. xam suñu stratégie économique xam suñu planification économique da ngay xam ne souveraineté bi ñuy wut ñun dañ ko bëgg a bokk ak espace boobu moo gën a baax. donc encore une fois nekkuñu dans une logique na dañ koy def dans deux mois dans six mois ou dans sept mois nekkuñu ci logique yooyu. mais critique yi ngeen di jot noo leen koy encaisser kon. Voilà cette campagne bi rek motax non mais papa, allez, combien de fois man lañuy wax ci monnaie on parle de la monnaie depuis une dizaine d'années. absolument. depuis une dizaine d'années. Nous mhm. ñuy expliquer lan moy lan moy rôle banque centrale deug yor taux directeur ba nopi réew mi momal ko bopam wala réew yo xam dañu nekk seen logique d'intérêt. intérêt xam nga franc problème bi bi jëk am moy problème gouvernance ben moment. Euh, dafa amone des représentants français yu nekkon dans le conseil d'administration administration. Mhm. légui léegi dañ. loolu dañ banque centrale bi fi nek dafa nek dans une logique uniquement axée sur na contrôler inflation nekkul dans une logique de dire aussi na financer l'économie économie tey jii yu bari ñu ngi may déglu. parce que je suis rentré mangi Sénégal depuis bientôt deux ans. Mhm. sama cabinet rôle moy dimbalé ay entreprises jot du financement mais papa, da ngay gis ku yor terrain boo terrain bi valeuru dama terrain 2 milliards Le valeur titre foncier 2 milliards Nous étudier bâtiment bi ñu bâtiment 11 niveaux par exemple le mhm. bâtiment bi 2 milliards ou 3 milliards en tout et pour tout le projet bi 5 milliards la mhm. ñu ne mais xam nga bu da nga def immeuble bu ko loué revenu locatif yi rembourser banque mooy rembourser prêt bi mhm. nga andi terrain apport sa terrain à sa apport banque bi war la 3 milliards mais sur le 3 milliards il est obligé de calculer ak taux d'intérêt intérêt 11 12 le taux d'intérêt, Il a fait calcul d'amortissement, amortissement gis ne prêt bi ken mënu ko rembourser dul 12 ans mais banques yi dañ la ñun mënuñ la lebal 12 ans parce que la banque centrale daf ñoo imposer que ñun dañoo wara liquide ba mënuñu la jox xaalis bo xamné 3 milliards yu la jox nga war ñuko dello ci 3 ans ci 12 ans mënul né ñun projet yi ñu mën moy projet xamné c'est 3 4 ans la nek pourtant projet bo xamné ne dañu buñ buñ immeuble bi ci saa hmm immeuble valeur 5 milliards la. bor bi 3 milliards la. fait un rapport entre valeur. bâtiment bi ak bor bi. Mhm. bor bi est à 60 immeuble bi loolu garantie. garantie mën na ko mais li tax banques yi duñ la lebal moy banque centrale mo nan len foog ngeen téye donc banque centrale bi ni muy doxalee day bloquer même yenn banquiers yi nga xamné paré nañ pour accompagner yenn projets yi parce que tellement dañ leen di wax né les mesures prudentielles da ngeen wara a téye bi vous bu démé dafa wara ñëwaat la banque centrale n'est pas dans une logique de financer l'économie de ce pays té lolu mënuñ ci continuer il faut que ñun pays africains yi nekk dans la sous-région. Mm-hmm. ñu enta ñu entendre ñun suñ biir a une banque centrale bo xamné dañ koy jox mission lutter contre l'inflation mais aussi accès au crédit l'accessibilité de l'argent qu'on puisse à un taux bu nit ñi accepter mu gérer la masse monétaire ni mu wara lutter contre l'inflation nous la lutter. La lutter gouvernance Si lañ soxla être souverains, nous bëgg souverain ci suñu monnaie moy duñu bëgg ñun ñu la vision monétaire soxla pour notre développement économique du rek imprimer suñu monnaie Hmm. dañ bëgg banque centrale boo xam ne day xëy hmm. ne sous région bi pays yi nga xam ne ñoo ma ñoo ma fi samp dañ ma créer jox ma trois libertés par exemple comme Canada banque banque centrale bu Canada dafa am ay liberté dafa dañ ko jox ay mission bu koy doxal lijjantiwul état donc tey ñun avec nos pays frères bu ñu hmm. discuté ba sam benn banque centrale dañ ko jox ay mission yu clair ne ko yow sa première mission mooy fexel ba njëg yi du départ du du croire yenn croître parce que salaire yi dafa war a am solo consommation dafa war a inflation deuxièmement na nga un taux directeur bo xamné tout le temps day favoriser mhm. euh, l'accès au crédit crédit dafa taux d'intérêt entre 5, 6, 7, 8 pour cent mhm. xam objectif c'est des objectifs de développement économique lolu moy objectif souveraineté donc jiitaluñu politique monétaire au-dessus de politique de marché dites-nous, politique de marché au-dessus politique industrielle jiitaluñu politique industrielle au-dessus politique politique développement du secteur du secteur primaire. Mm-hmm. donc ñun suñu priorité tey bu ñu c'est quoi votre priorité c'est le secteur primaire. ok Il faut bëggoon que ñëw ak yow. Mm-hmm. donc moo aboutissement là. aboutissement la surtout ñun. position bi surtout position bi une position bi ngeen nekk munoo xëy suba na monnaie. David. aboutissement là. mais nag amoo droit tam. Uh-huh. di dem élection te waxoo sénégalais yi moo ne baa monnaie banque waaw sincérité. mooy sincérité nga wax li nga bëgg. li nga bëgg. na man mi suma ma jotee réew mi ci li ci li ci li ci lii finalement souveraineté monétaire la bëgg. la bëgg lan moy sen priorité ci walu économie bu leen jotoon réew mi. gis nga secteur primaire industrialisation. ok. primaire lepp luy agriculture élevage pêche. Quand licence de pêche, C'est-à-dire qu'il faut que nous produire le plus possible. C'est-à-dire que si vous exploiter 10 hectares, il faut que nous trouvions une solution pour exploiter 20, 30, 40 hectares. Parce que c'est ça qui va t'enrichir. Mais pour nous faire il faut que nous nous souffre. Si je suis en train accès à l'équipement, à la technologie, je suis en train de 10 hectares et je 40 hectares. Et là, le cultivateur sénégalais vient de multiplier par 4 sa richesse mais xanaa da nga leen accompagner. absolument au plan financier. parce que suñu. agriculteurs yi amuñu doole trop. xam nga suñu candidat Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou wax na ko. Mhm. Casamance il nous faut revenir avec les pôles. Mhm. économiques les huit pôles yi nga xam dañ ko wax sur territoire du développement L'objectif bi lool bi c'est que dans chaque territoire il faut que nous xol quelles sont les ressources yi fi yalla def ñu bâtir l'économie des territoires autour de ça bu fekkente ne des nekk par waalo c'est la pêche hmm. il faut que ñu région waalo am une stratégie de développement de la pêche stratégie d'équipement stratégie de formation fexe ba pirogue yu ndaw yi mais loolu pour nga may nit ki mu mën a def loolu foog nga jox ko équipement bi koy may technologie un système de sonarier, péniche nga hmm. permettre c'est-à-dire que modernisation bobu si le pêcheur sénégalais est toujours un pêcheur traditionnel mais jamais duñu mëna am secteur de la pêche bo xamné dafa moderne di produire en quantité si les pêcheurs ne pêchent pas en quantité du ko andi ci les industries ne vont jamais pouvoir am matière première bu ñuy transformer parce que c'est lié industrie bari dañu dañoo d'ailleurs parce que accès matière première mm-hmm. man gis na fi ño xamné dañ bëgg euh, créer tannerie mais problème bi ñu am mooy ñu gis der duñ gis dar léegi boo gisul der sa tannerie mënul dem. pourtant ak sa Touba yooyu war nañ fa am ay der yooyu yooyu. non non mais attention tannerie yi dañu am puissance dañu am capacité. Mhm. donc boo Les gisoon en ces temps sax chinois yi di ko jël di yóbbu. di ko di problème la. cest à mhm. politiquement il faut qu'on interdise l'herbe de guerre sans nous transformer ko. Mhm. mais deuxièmement il ñu que ba suñu suñu éleveurs yi bañ a ci des éleveurs nomades mais nekk ñu nga nous nous dañu élever plus et en quantité. plus on produit euh, de bétail. plus on produit de cuir D'herbe, der d'herbe, nag dem ci industrie donc ñun priorité bi c'est le primaire le primaire c'est ñi jaar plan de développement des territoires territoire bu nek am sa plan bo xamante ni dañu am plan de développement économique par exemple du Bawol mm-hmm. Bawol dañu wara analyser c'est quoi l'économie du Bawol et acteurs économiques yooyu naka lañ leen ni approcher di former di équiper pour buñ produire ben ñi produire ñet juróom ba fukk hmm lolu bu ñu ko réussiré nous réussir révolution révolutionner le primaire sénégalais ensuite industrialiser notre économie Pays suñu xel dina dal nous sur une transition monétaire par exemple avec les autres pays. et puis même si nous avec d'autres pays nous devons un am produit yu ñu nous si nous accord bu ñu temps petit bi ci de andi ko si nous transformer temps en pot. Mmh. mais non seulement le valeur ajoutée expertise bu baisser le bu sénégalais di man parce que jamono ji nous ku koy def mais mi ngi koy def à petite échelle qu'est-ce qui empêche l'État sénégalais de d'être un État actionnaire ñeu participer à l'actionnariat renforcer ko voilà option yi ñu jël té dafa am logique. Mm-hmm. donc ñun ne rek euh, amna yo xamné c'est stratégique monnaie c'est stratégique mais nous connaissons nos urgences nous connaissons ce qui est fondamental ce qui est prioritaire et yi nga d'ordre stratégique en planification il faut distinguer les qu'est-ce qui est urgent qu'est-ce qui est important. non qu'est-ce qui est ce qui est prioritaire. la priorité c'est l'homme d'affaires sénégalaise la femme d'affaires sénégalaise. Justement, comment faire pour créer un capitaine d'industrie au Sénégal <laughs> Parce que ça, ça me pose toujours problème. Parce que dans mes tu me disais, Mohamed VI, si au Sénégal, il y a avion, hein, ah, Si mhm. entrepreneurs, des capitaines. Si les trois premiers jours, le plus important, c'est la signature de contrat. Absolument. Jox marché, marché des entreprises, entreprises marocaines. Uh-huh. Tu jii dit que économie sénégalaise ci juróomi loxo la France Chine Inde Maroc Turquie. absolument commande publique. voilà ne crée pas d'entreprise. Mhm. L'État ne participe pas dans l'économie. économie. Mhm. ce pourtant qui nous koy wax Qui nga économie la France. Nous mu bâtir ces généraux de l'économie là comme on les appelle une agence de participation de l'État français agence boo xam ne liggéeyam lan français bu gis mu secteur bu stratégique ak secteur bu souverain yor ci entreprise dox mhm. jël participer ci entreprise protéger ko tu comprends Vous mhm. ci alal ju di contrat su ma un contrat bu def bu liggéeyee bénéfice man dama ciy am parce que l'actionnaire est actionnaire. donc l'une des manières pour créer justement ces généraux de l'économie ces champions. Mhm. c'est de trouver des sénégalais qui xam ne ñu ngi ci secteur bi di ci def ay résultats yu am solo mais ils sont à petite échelle. nga ñëw jël agence nga samp agence des participations de l'État sénégalais agence boo xam une capacité ci xam-xam. Mhm. ak ci mën-mën ci investissement am ay moyens nga ñëw accompagner sénégalais bobu à travers des jël part bu bëri ci ci ci ci mm-hmm. ci capitalam accompagner ko sur un plan ak ben stratégie mom mu ne ci di doxal mais mu xamné dans mon actionnariat j'ai des des actionnaires qui nga ils représentent l'intérêt de l'État on n'est pas ici dans euh, entreprise nationale non mm. l'entreprise reste une entreprise purement privée qui fait qui a une logique commerciale l'état est actionnaire et peut-être qu'il donne sa majoritaire donne majoritaire l'objectif c'est quoi protéger cette entreprise invest injecter dans cette entreprise parce que l'investissement investissement étranger bi bu ko des du ñu avantagé mm-hmm. système bancaire bi du les banques financent généralement la croissance surtout ah, les banques commerciales du ñu financer parts. donc quand yu mel nii je la un exemple euh, li ñuy consommer ci farine de blé c'est quasiment 160 milliards chaque année. 160 milliards 160 milliards. Alors, du bëri la de farine farine blé pour pour les mburu hmm. mais les sénégalais yi nga pour être des producteurs des producteurs agricoles de blé. Hmm. ñooñu état war créer une coopération avec ak actionnariat jox leen suuf accompagner leen gars yi de produire l'objectif sur 10 ans c'est de produire l'équivalent de ce qu'on importe. Hmm. Nous nous ñun modèle économique aussi Moi, euh, il faut que ma jaajëfal suñu cadre yi xam nga substitution aux importations lañ logique Je lañ nekk. moy hmm. balance commerciale et ak déficit ak déficit bi tant que inversé wuñ ko suñu réew fay ne da ngay au choc externe donc si on donne 160 milliards de blé à l'extérieur on va produire l'équivalent de 160 milliards au Sénégal sur une période de 10 ans on est en train de faire une mhm. substitution une inversion Les loo xam ne ñu ngi koy jël di nous andi nañ xool naka lañ ko mën a ci changer mhm. ak créer conditions pour que Sénégal yi dem foofu ce qui fait que xaalis bi day des ci milieu. loolu tam fàtte naa ko wax pour ñi gën a mën a comprendre politique monétaire nañu dem xool ce qu'on appelle triangle de Mendel triangle wax ne danaan la am na ñett yoo xam ne mënoo koo am mënoo am parité fixe hmm. monnaie boo xam ne du yëg du wàcc day taxaw rek ba noppi nga am capitaux yi di toog ci réew mi ba noppi am capitaux yi di génn ñett yi fa nga tànn ci léegi yow loo bëgg est ce dama bëgg xaalis bi toog sama réew boo bëgg xaalis bi toog sa réew moom foog nga am parité boo xam ne day wàcc pour xaalis bi toog parce que plus sa monnaie di sa monnaie faible nit ñi bu ñu xamee bu ñu génnee seen xaalis réew mi valeur bi wàññi ko rek fay bàyyi bàyyi ci biir. boo ko mhm. bàyyi ci réew mi xaalis bi di liggéey. de circuler waaw. donc stratégie monétaire politique monétaire li ko tax a jóg mooy naa fexe ba masse monétaire bi na na des ci réew mi nit ñi bu ñu liggéeyee xaalis nañ ko bàyyi ci réew mi di ko fi investir bu mu génn français FA nag dañ ko tëggee noo xam ne stratégie bi mooy parité fixe bi day permettre xaalis mën a génn. Hmm alors que ñun xaalis bi génn arrangé wu ñun xaalis bi tok moo ñu arrangé mais lool yépp du lu ñuy lu ñu xam la lu ñu jàngat la mais du loo xam ne da ngay xëy këtt ne joon rek la ko non il faut d' abord bâtir suñu économie. depuis nos territoires. avoir nos industries. Mmh. avoir nos fexe mu leer ñu ne ñun bu crise amoon résilience am na boobaa nag te li ñuy ñaan yàlla bëgguñu sax am sunu monnaie bopp ñun dong kott. Nous sommes soñoon monnaie plusieurs pays africains parce que le Sénégal le génie industriel sénégalais les producteurs les agriculteurs mhm. l'agriculteur sénégalais va pouvoir nourrir vraiment tout l'ouest africain Nous avons une ambition donc nous devons limiter sur les détails débat monnaie euh, programme de gain, nous économie nous ñu monnaie nous ah, véritablement participer à l'évolution du débat Nous devons nous challenger ci suñu planification stratégique bi ndax ku taxaw ci wala dégg euh, euh, si wax ko. nit français dañ assurance sous développement une j'ai bien aimé mhm. par contre man en tant que planificateur et gestionnaire damay wax manière claire nous sommes des gens responsables. Si nous fekk instrument français français, loko bañ bañ bañ monnaie biñu yor ni mhm. nit ñi am confiance. Nous avons fi tek ëlëk nit ñi dañ confiance ñun objectif spécifique c'est pas rek am suñu monnaie bop non objectif c'est le développement économique de ce pays. ça commence par le développement du secteur primaire, l'industrie, et surtout créer un marché. Surtout l'industrialisation. Parce que ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de l'emploi. Mhm. Ça règle le problème de la balance commerciale. Mhm. Parce que produits, importés, produits transformés yi la. da ngay gis jël sa gerte jox ko chinois bi mu pare ngay importer diwlin ak saabu te transformé on sa gerte ci dëkk bi di nga produire chinois au contraire ba jël ko dem ko ci rayon français yi am ci ne ko am mhm. jël suñu Chine transformé ko andi ñu di ñu ko à un prix extraordinaire alors que si bu ñu les les les pêcheurs organiser en coopérative former leen jënd ay bateaux yu baax yu permettent permettre ñu dem japp ton bi ñom dañuy japp andi bu andé ñu xol Sénégal ñan ñoo fi nek dans la transformation de poisson industriel état jël ci part def ci injection jox leen équipement yi. ñom bu ñu jënd ton bi ci loxo pêcherie pêcherie pêcheurs yi encaissé mhm. fay sen bor nek sen jàmm ñom ñu transformer ko jël ton bi def ko ci ay pot de sardine le jour parce que jën bi nga xamne dafa naroon nëpp boo xasse def ci pot de sardine rek. Mhm. sa valeur commerciale conservation nga mën ko commercialiser sénégalais bi am protéine nourriture bu bax mhm. bu sen bu yomb ndax ton bu ñu jàpp léegi transformé ko ci réew mi. Mhm. Euh, day bax ci sa poche yow Pape Alé parce que bu dee yow boko ko jëndé 3000 mais comme sa dëkk lañ ko défé nga ko jëndé légui 2000. tu économises 1000 francs mais temps bi nga xam ne léegi ëpp na loolu dañ ko yóbbu jël ko Espagne yóbbu ko Espagne jaay ko mais xaba xoolal prix prix saumon bi foofu saumon mën na coûter ay treize mille quatorze mille donc xaalis boobu day del si ci réew mi parce que fii la jóge ñun logique yooyu lañ nekk ba noppi nag marché bi bu ñu mënee am un grand marché africain ñu bokk ñu bokkandoo benn monnaie hmm. bokk souveraineté monétaire boobu partagé ko ak ñoom loolu mooy suñu objectif bi gën vous faites ne des gens nekk ak Africains dans 20 ans bëgguñu am monnaie. Mm-hmm. alors que pendant ce temps am nañ une stratégie pour au cas où on doit se retrouver seul au bout de 15-20 ans il va falloir que nous une suñu responsabilité. mais je pense que le débat a été lancé au niveau de. et le débat a euh, été lancé au niveau de l'État. Nous lii mooy moo la souveraineté monétaire n'est pas la monnaie monétaire. man non souveraineté monétaire la possibilité d'utiliser les toutes les fonctionnalités de la monnaie pour son développement économique. Mais préalable c'est préalable développement économique. Espace bi priorité que la que monnaie en tant que telle. Mhm. Donc nous on est cohérent dans ce que nous disons. Bo jëlé temps déglu nous, di comprendre ni une planification c'est une priorité c'est un objectif réel c'est am ben monnaie à travers. gérer <laughs> moo tax nag géré de France <laughs> yàgg laa wax fii ne bu guerre amoon diggante Sénégal ak France billaay di nga gis ku ñuul kukk dem taxaw la la jël arme jibalu nga ne déet waay mhm. <laughs> am na ñoo xam ne gère les intérêts de la France de alors pare nañ ci mën bi léegi j'espère que ne léegi leer pare nañ ci mën bi mais il faut ma ba euh, non duñ jeexale émission bi man a man dafa am leneen lu ma la seen poste vice président bi mhm. jur na coow tamit jur na coow effectivement parce que nit ñi Sénégal xam nga loo def dañu jàpp ne nit a tax xam nga am na borom xam-xam bu ne les grands experts discutent des enjeux. Hmm. mais am na ñoo xam ne ils discutent des des personnes. des personnes xam nga man proposition bu ma comprendre la euh, parce que ñun dafa am jàngoro ju fi nekk. Hmm. mooy président boo xam ne daanaka yàlla ju ndaw la. hypertrophie. hypertrophie du pouvoir présidentiel ñëpp d' accord nañ ko. ñu ne ñu ne ñun amna lo xamné bu ko président défé sax war nañ ko mëna a. destituer ne ko da ngay wacc au trahison. dañuy ñun bëgg nañ définir conditions yi nga xamné président Sénégal bu ko défé ba mu feeñ ba mu lèr ba ñu jugé ko ci saa si day dootul doon président. nga lolu am nañ ambition bobu wañ ay dolem lolu boo ko defee mais il faut prévoir situation bo xamné président bi su bougé il faut que am ku fi taxaw ah kon da ngeen bëgg haute trahison bi da ngeen ko bëgg. ah oui il faut que il faut ah oui il faut que le président puisse répondre acte de haute trahison yenn yi boko défé il faut que ñu mën ko étudier tout de suite donc motax ñun luñ def amna logique donc bo nekkee dans une logique de dire que le président dootul boom di buum yi bés bu défé acte de haute trahison légui nak dinañ tok de manière collégiale ñu discuter lan moy haute trahison une condition lañ ko mën a defee ñu taxaw. te ce n'est même pas pour cette élection. non n'est pas pour ces élections. parce que vous n'êtes que dañ koy élire au suffrage direct voilà nous def fait référendum discuter. on va aller vers des changements. Boba, le pouvoir exécutif dañ koy encadrer Le président <laughs> acte de mel ça c'est de la haute trahison. Nous, par exemple comploter avec la France ou avec d'autres pays sur tel tel tel tel tel président bu def loolu mais là ça c'est la haute trahison donc quand bu mel un bu président boobu war a vice président ñu ne amuñu vice président fan lañ jëm wala bu assemblée nationale dans 92 jours, jours une élection Nous du ñu andil problème non fal nañ mandat président la vice président nañ continuer damay justifier rek logique bi cadre suñu cadre pour proposer le même. nom pour voir s'il n'y a rien d'impertinent dans ce qu'ils ont dit c'est très réfléchi Tu li ma la Si je boo Sierra Leone Sierra Leone mhm. le président est toujours élu avec un vice-président mais fille, est-ce que le traumatisme Mamadou Dia Senghor moo absolument C'est tax yi ragal ah. et c'est tout à fait normal c'est logique aussi c'est logique aussi mais discussion bi may am c'est juste pour que nous sachions que ne ko pour ne ay Ousmane lañuy rek non non Ousmane sax mënul 2024. ñu non parce que bon il faut que ça soit clair. Mm-hmm. le président et le vice-président sont élus au suffrage direct. donc buñ ko doon def élection des élections. élection bi am nañ temps expliquer nit ñi ko. mais une discussion lay discussion mais dama bëgg wax cadre yi ko proposé xam tax ñu def ko. mais est-ce que loolu xalaatul nañ ci crainte ñaar ñi bañ a bañ a bañ a bañ a problème bien sûr. moom crise am crise c'est possible moo le président Ousmane Sonko ne moom renforcer rôle du premier ministre mo ko gënal te gis ngeen ni ko waxé. et et tax ñun nuñ suñ formation politique on est très ouvert ak surtout contexte bi ñu nekkoon. emprisonnement yi man mii renforcer premier ministre boobu gën a. absolument. Mm-hmm même man quelque part moo ma gënal. mais dama lay bëgg wax rek né contexte aussi biñ ñu Ousmane nekk en prison ñi nekk en détention programme ñu war ko liggéey war ko génne ñun ñu def suñu liggéey joxé c'était compliqué mais cadre yi ko proposé ils ont de bonnes raisons de l'avoir proposé bi ci top ñëpp xam nañ Sénégal à partir de l'histoire de Macky Sall biñ limité képp ku fi toogati ëlëk xam nga né yow buñ la xassé fal deuxième mandat paré nga ci réew mi. Mm-hmm. donc la préparation de la relève dafay nekk lu am solo Macky Sall lan moo tax mu bloqué réew pendant 5 ans du ma tànn dauphin problème de dauphin Macky Sall dafa bloqué Sénégal pendant 5 ans Sénégal 5 ans yi passé liggéeyuñu Macky Sall amul woon sax premier ministre pour te dire xeex rek xeex rek politique moo tax système yooyu nag di la imposer nga préparer quelqu'un voilà les deux arguments clés yi nga xamante les gens l'ont avancé pour proposer le poste de vice-président. mais bu crise amee si ñoom ñaar nag dualité au sommet de l'État. non dualité mënut am parce que souvent les vice-présidents dañ leen des missions nga ils sont juste là au cas où déjà sax missions yi ñu souvent des missions qui diffèrent mm. complètement des missions du président de la République. pour que justement le président di def ñoom beem ba moom war ko remplacer moom mënuñ koo laaxaale ci problème bi. ok. Non, Non, le dispositif américain la le vice président américain. il est là mais on sait qu'il est là pour un cas de vacances. Mm-hmm. jox a ko certaines mission, mais c'est juste pour que le pour parce que un État ne doit jamais rester sans chef. Mm-hmm. Et dans le cas où on dit que si le chef trahit, il n'est plus chef, bah, il faut penser à quelqu'un qui peut être chef. Voilà la logique. Maintenant, moi, je souscris à ce que dit mon leader, le président Ousmane mon premier ministre bu ñu renforcer il li des fois entre cadres nous pouvons discuter. Mm-hmm. je me dois wax lan ce n'est pas c'est pertinent mais au final c'est le leader de notre formation politique qui tranche. Mm-hmm. et il a tranché donc le débat on avance sur ce débat. on avance sur ce débat alors camp euh, beneen kii kii bi tamit Diomaye manque d'expérience. Hmm. Euh, Diomaye aussi euh, xale la Diomaye warul nek président de la république mu nek premier métier muy test bon yaa ngi dégg wax yoy quoi. Hmm. man xam nga damay déglu ba premier mais bon des fois damay le bon attends je vais m'occuper <laughs> faire les choses <laughs> beaucoup plus sérieuses quoi hmm. voilà. non xam nga amna ben borom xam-xam bu ne l'expérience. souvent elle n'éclaire que le chemin qui est déjà parcouru. Ah, bon. Mhm. sa expérience sa expérience là. yow li nga Ça ci sa passé ce n'est pas l'avenir parce que avoir de l'expérience c'est bien avoir de l'expertise c'est bien mais surtout li solo une masse critique de citoyens yu khalat, définir un projet de souveraineté. Mhm. définir un programme définir ay axes claires. ñu jël la on te charge de l'exécuter c'est aussi simple hein c'est pas compliqué jëluñu Diomaye rek jiital ko noonu bàyyi ko mu dem non. même Ousmane Sonko même Ousmane Sonko tey bu doon moom candidat duñ ko jiital rek Ousmane non non non du tout pourquoi il a un cabinet pourquoi il a des députés Pourquoi il a des ministres qui sont avant toute chose des conseillers techniques principaux mmh. Donc, inexpérience, de, tout, et de toutes les manières, bonne expérience lañ fi am ñun état du Sénégal Sénégal Sénégal, j'ai nekkee ba <laughs> pendant 12 ans. Mm-hmm. jox nañ 50 000 milliards. quels sont les résultats de Macky Sall. le micro bi jégal sa micro bi. résultat wu Macky Sall. là, résultat Macky Sall. Macky a jël na 50 000 milliards j'ai ko pendant 12 ans. Le Taux moyen de croissance de Sall c'est 5,5%. Résultat yoyé est-ce que a une expérience bu reuy? Nga émergence la andil. émergence a un taux de croissance à deux chiffres. Mhm. Donc sur 10 ans on a une croissance de 10 15 17 19% deux chiffres. Le taux de croissance au Macky Sall bi mu fi toogee ba additionné divisé ko par nombre d'années bi tu as 5,5%. taux moyen de croissance Macky Sall C'est une expérience extraordinaire Macky Sall la balance commerciale c'était environ 1700 milliards C'est li ñuy jëndi. ak li ñuy li li ñuy li La mm-hmm. différence bi c'était déficitaire de 1700. Macky Sall eu yobbu déficit à 2400 milliards C'est lolu expérience bobu bañ lañu am pauvreté Nous avons 5 millions de pauvres Macky yobbu eu 6 millions de pauvres avec 50 000 milliards indice de la pauvreté Vous mmh. calculez les pauvres 40% des sénégalais sont pauvres bo jëlé 10 sénégalais ñent yi pas pauvres indice de perception de la pauvreté Moi, nit ki que ko laajee ndax moom daa ndóolam déet boo jëlee 10 sénégalais juróomi dañ naan la ñun dañoo ndóol 50% des sénégalais Madame, 9 millions de sénégalais considèrent qu'ils sont pauvres après 50 000 milliards dépensés par Macky Sall indice de développement humain nga xam moi, mooy mesurer jàng bi est-ce que mi ngi dox ni mu war espérance de vie est-ce que mi ngi dox ni mu war a ak koom ak am-am est-ce que mi ngi dox ni mu war a doxee Abdoulaye Wade toog fi fukki du gorgorlu ba gagné 0.08 points 0.08 donc ci at ci 10 ans yi en moyenne dina dina fexé ba gagné ben 0.01 wala lu ko yes touti mhm. bo défé moyenne bi mu am 0.08 Macky Sall ñew sur 10 ans mu yobuñu 0.04 contre performance moy fu fu Ablaye Wade don défé 0.0 euh 0.08 wala 0.008 Macky Sall def 0.004 donc nous nous reculer en plus nous perdons de points. donc vous regardez l'indice de développement dañu def contre performance vous mhm. les indices de pauvreté dañoo dellu Si vous regardez suñu croissance économique nous sommes à 5,5% par année moyenne Si vous suñu suñu balance commerciale nous sommes déficitaires. déficitaire donc on produit beaucoup moins on achète beaucoup plus ba puis, ça c'est les indicateurs techniques hein hmm.

Macky Sall Abdoulaye dafa fekk boru cinquante pour cent góorgóor ba mu wàcc ba trente trente neuf pour cent. Mhm. Macky Sall ñëw jëlee bor bi yóbbu ko bës. moo tax ba noppi bàyyi ñu réew mu nga xam ne dafa nekk en tension de trésorerie mooy maanaam réew moo xam ne boo fayee électricité non boo fayee fonctionnement salaire yëpp. Mhm. fonctionnement administration bi yëpp. fay salaire at fonctionnaire yëpp. génne l' intérêt de la dette. génne l' amortissement de la dette xaalisu réew mi jeex na.

voilà le résultat de Macky Sall Les xoolee situation budgétaire c'est catastrophique l'endettement c'est catastrophique les indicateurs économiques c'est des contre-performances bilan social il y a plus de pauvres qu'avant Bon, a euh, bilan moral mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays. ça on a eu ce débat ici avec ça hein. et puis <laughs> je, ne pense pas qu'on peut avoir pire que Macky Sall c'est pas possible et pour moi, c'est une bonne nouvelle parce pourquoi en quoi en pourquoi on doit voter Diomaye mais parce que c'est quelqu'un qui il fait partie d'une formation politique hmm. qui a mis une offre politique de souveraineté sur la table très claire un projet que nous avons détaillé depuis depuis près d'une dizaine d'années ñuy expliquer Sénégalais ci lan lañ jëm yaakaar naa ne voter Diomaye c'est voter la clarté Lo xam expliquer expliqué nañ ko wax ko waxati ko dem ci plateau yi défendre ko bind plusieurs ouvrages donc quand on da ngay dem ci lu mais sax mesure ngeen attente bi. ah mais l'attente est. a gis c'est d'une on n'a pas droit à l'erreur on est dans une logique de planification de gestion de tous les risques de gestion de toutes les opportunités on n'a pas de temps à perdre on ne peut pas se permettre de faire des choix d'erreur sur les hommes. Nous ne nekk pas choix tànn nit maa la neex non on veut des résultats rapidement organisation apaisement structurer et réunion. def des réformes fondamentales parce que c'est ça les urgences réformes yu nit ñi xam ne ñii kat jël béykat bi def ko jël éco suñu économie l'homme l'acteur économique sénégalais bi nek dans les secteurs informels l'agriculture, la pêche jox ko priorité bam mu yëg jox nañ ko priorité def une décentralisation réelle jël alal ju doy séddale ko ci gogo xadi jox len prérogative ñu commencer mën travailler leur propre développement local nit ñi commencer gis sen bop ci ni ñuy yoré pas ñun ni ñu leen yoré ñun mais ñom ni ñu wara yoré sen bop parce que décentralisation mooy nga yor mën yor sa bop ci yooyu lañ jëm te kafuñu ci fowuñu ci ñi nga xam ne dañoo jël réew mi def ko Sénégal def ko théâtre def ko espace de showman man. boo nee politicien tu peux t'attendre à tout quand tu dis que est politicien là, tu peux t'attendre à tout tu peux t'attendre à ce que mu réelo la mu fétial la mu wayal la tu peux t'attendre à toute forme de pitrerie mm-hmm. loolu la ñu fait pendant 12 ans nous bu c'est la fin de la récréation célérité simplicité servir les sénégalais Nous pour liguer. point barre à la ligne. c'est bien dit Moussa Bala Fofana mon école ah. un dernier message pour euh, parce que man sénégalais de tout record. Ah. bu musta am ci politique. musta am ci politique dégg naa boo xam ne man dama ci xeex fi mu nekk nii pour sénégalais yi voter. te gis nga danoo lal benn euh, lu ñuy waajal. Hmm. temps yëpp ñu ngi naan jeunes yi bëriwuñ ci fichier bi jeunes yi bëriwuñ ci fichier bi ñu ngi koy wax liñ ñu si jublu mooy hold bu ñuy waajal et ça ne passera pas. <laughs> réew mi ku fi hold-up réew mi tàkk de te bi bu tàkkee moom. Mhm. leneen la ñuy wax moom. kon dama bëgg seen wax yooyu dañ ko teg ci suuf. fi réew mi xam le projet de PASTEF mo fi prioritaire mo fi majoritaire de manière écrasante xam nañ ko. Mhm. dafa leer ci bopp ñëpp. élection yi dimanche prochain bëss buñ commencé dépouiller nit ñi dinañ xamné victoire bi dem na ci loxo. Mhm. Ousmane Sonko ak Diomaye ak ñimu Andal, mhm. ak les alliés de notre coalition. loolu lu leer la limay wax nak génie ak mag ñi ak ñëpp té légui Pastef bo gisee ñi lay interpeller ay maire ay pas, donc si nous bëggee c'est les jeunes qui votent Pastef attention nous ngi préparé benn hold-up Nous loolu du fi mhm. Nous savons donc il faut que les choses soient claires je lance vraiment un appel à la mobilisation je veux que nous nañ jug mhm. ñu jëliwul Nous nañ dem Nous na leen nous jaral effort yi ñu deux trois jours ñun jël nañ engagement ne dinañ leen ko fay ci liggéeyal leen ba ñu xam ne liggéeyal nañ leen na leen ko jaral. Mhm. récupérer vos cartes. le jour des élections samedi ci guddi teel leen a tëdd ndax koor gi lañ nekk. Mhm. on a tendance guddi gi yëpp ñuy kii dimanche bi ñu yeewu midi non non non danañ ko ñaan samedi teel leen tëdd huit heures na leen fekk bureau de vote ba teel a jug teel a voter donc, nag sécuriser vote bi su ngeen vous dem bu len yóbbu ben bracelet bu len yóbbu ben t-shirt bu am effigie Pastef wala coalition Diomaye dem len dans la simplicité de toutes les manières bureau de vote yep am nañ suñu mandataire ak suñu représentant yu yu fa yu fa nek ñu ngi appeler aussi refuser de réagir à toutes sortes de provocations et de violences mm-hmm. parce que loolu lañ si jublu fitnaal nit ñi alors que ne ci élection lañ dem ci lu dal lañ bëgg lañu ko bëgg je lance un appel au peuple sénégalais s'il vous plaît jug leen dem voté faites confiance ci doom yi ngeen Sénégal c'est une grande nation suñu papa yi suñu yaay yi dañu yar fañ ñu war a jox ñuy jom fulla ak fayda kenn ku ci nekk responsable passif yi kilifa la ci kër gi ba noppi doomu kilifa la kon ñun duñu ay xalé ay magum jëm lañu dañu def ay choix yu grave dañu risquer nos vies dañu risquer nos carrières dañu quitter toutes les grandes institutions yu ñu mësoon liggéey ñibbisi ci réew mi toog auprès de Ousmane fekk fi suñuy frère yo xamné fi fii lañ mës hmm. amone ay possibilités de carrière ñu bañ ko ñi ñu dakk leen ñi ñu tëj leen lu ne dund nañ ko hmm. on a tenu bon ba tey kenn mun do douter ci suñu intégrité ak suñu engagement ma ko ñaan faites confiance à ñi nga xam ne yéen a leen jur ñu nekk ay gor yu set wecc fas yéene liggéeyal réew mi dañ leen ko ñaan dimanche na sénégalais yépp jug voter pour le changement ba noppi permettre Sénégal mu tegu fi mu waroon tegu depuis 1960 te ku xam président Ousmane Sonko xam Bassirou Diomaye fay xam suñu responsable yi xam ne ñu nekkuñu ci caaxaan. engagement bi ñu jël daañ ci dog suñu tàggu tànku tugay parce que nag dafa am lu ñuy ñaan suñu borom politique day jeex. te man bëgg naa dans trente quarante ans su ma yàlla su ma yàlla mayee gudd fan ma mën a jàkkaarloog yow les yeux dans les yeux di la mën a xool nii ma lay xoolee tey parce que aw ma gàcce ne bañ ñu dénkee puso bi mujjee wuñ ko réeraluñ ko. man tamit ma leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen dig dajee ci beneen gan incha allah seen biir émission Dakar Matin jërë ngeen jëf